mu mel ni sunu jataayu tey bi dañu ñëw ci saar wi nga xam ni mooy suuratul xaashiya suuratul xaashiya moom moo tombeek quatre vingt saar maanaam juróom ñett fukkeel ak juróom ñetteelu saar ci ni nga xam ni noonee la ñu toftalee kaamil bi saar la woo xam ni nag makki yala bokk ci saar ya nga xam ni makka lañu wàcc moom saar wi min maqasidi suura jubluwaay ya nga xam ni ñooy jubluwaayi saar wi ñooy التذكير بالاخره وما فيها من الثواب والعقاب والنظر في براهين قدره الله جل وعلا صار لا و بوكنا سي اي جوبلو وايام فاتلي ليغا خامني موي ميري الاخره تموي muy delu way ba ñun ñëpp fa ñu ca àllaaxira la ca nekk ci ay yool ak ay mbugal ak xool xooluk settantal ci li nga xam ni mooy firndey kàttani borom bi jalla waala maanaam borom bi tabaraka wa ci saar wi daa ci gis ay firnde yoo xam ni dalay wone kattanam moom borom bi tabaraka wa taala daa ci gis kon kattanu borom bi tabaraka wa taala muy kattan gi nga xam ni moo féete kaw lépp di daw ci kaw lépp mu ne ak tafsir firi mi بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك أيها الرسول حديث القيامة التي تغشى الناس بأهوالها موندخ ذكر نلا خبار بسو تخواي بوبيغا nga بس ni bés bu raglu la bés boobee tiitaange gaag raglu ga day doon loo xam ni day muur nit ña waaw muuraakoon la muraakoon goo xam ni tiitaange ga njàqare wa رياي با داي مور نيت وجوه يومئذ خاشعه فالناس في يوم القيامه اما اشقياء واما سعداء فوجوه الاشقياء دليله خاضعه من خمل بس بوبينك نجنه dañu seddeli ko ñaar imma ñu doon ñoo xam ni ñu texe lañ imma ñu doon ñoo xam ni ñu texee di lañ mujjuwaayu nit ñi noonee la mu ne nag xarkanamu ña nga xam ni ñoo texee di ay xarkanam la yoo xamante ni nii yu torox la waaw xarkanam yu doya di ma nga torox ba dottoora yàlla nañ ci borom bi tabaraka wa taala musal aamilatun nasiba mutaabatun mujhadatun بالسلاسل التي تسحب بها والأغلال التي تغل بها ñu doon ñoo xam ni ah dañuy coonowu kër-këri lool sonn lool mu ne la leen di sonal nag mooy jéng ya goj ya nga xam ni chaîne ya nga xam ni moom lañ leen di jénge tasla naaran xaamiya tadxulu tilka alwujuh naaran xaara tuqaasi xarraha mu ne bu ko defee ñooña nag borom kanam yu torox yooye jëngee coono ya ñu daldi leen di tàbbal nag safara naaran xaamiya safara soo xam ni su tàng jër xarra waaw bu ko defee nag ñuy saafoonte aka jonjonte aka daj tangooru safara soosee muy mbugal تسقى من عين آنية تسقى من عين شديدة حرارة الماء شديدة حرارة الماء من بوبوبا نيلن دي ناندال ci ay bët bëti ndox yoo xam ni nag dañoo tàng lool waaw la fay génne di doon loo xam ne ñoom dañ koy naan ca bët yooyee day tàng lool bay wañax di baax laysa lahum taamun illa min darii ليس لهم طعام يتغضون به إلا من أخبث الطعام وأنتنه من نبات يسمى الشبرق إذا يبس صار مسموما mu ne duñ fa amum ñam foofee duñ fa am ñam woo xam ni dañ koy lekk mu nekk gaza maanaam mu leen di alimenté di leen di dundal déedéet lañ fay am ci lekk day doon ñam woo xamante ni nii ñam wu bon la ñam wu xasaw ma ngoog di xeetu ñam yoo xamante ni nii ay dég lañ mu ne lu mel ni gàncax gi nga xam ni moom lañuy woowe woowee ak chibra mu ne gàncax la goo xam ni ida yabisa saara masluma su woowee day nekk tooke maanaam day nekk poison poison lay doon su woowee لا يسمن ولا يغني من جوع لا يسمن آكله wala yasuddu jawa jawata mu ne gis nga ñam woowee lekk yooyee naan googee doon na loo xamante ni nii du dundal yaram wa maanaam ka koy lekk du ca amee yaram te du faj xiif du la suural loola kon mbugal la mbugal mu tax la ndax bu fekkee fii ci àdduna rek fan yi yéen ngi dégg ñu naan risque de famine ci ay dëkk Afrique yu bari ndax crise yi nàngam crise nàngam crise nàngam bu fekkee fii rek ci àdduna lañu am si cause mbiri famine kon fa kay fa nag yowmal qiyaamati ca biir safara وجوه يومئذ ناعمة ووجوه السعداء في ذلك اليوم ذات نعمة وبهجة وسرور لما لاقوه من النعيم من خركنا منك نيغا خامني ni ñooy تخيا texe ya bés keroog ay xar kanam la yoo la nga xam ni mooy xéewal ak nay ak mbégte ngir la nga xam ni moom la ñu daj moom la ñu dajeel ci ay xéewale ki bànneex li saayiha raadiya li aamiliha saalix li amaliha saalix alladi amilathu fi dunya راضية فقد وجدت ثواب عملها مدخرا لها مضاعفا ngir jëf yooyee nga xam ni mooy jëf yu baax ya nga xam ni doon na ko jëf ca àdduna mu doon loo xam ni da koy gërëm lu mu gërëm la mu ne daal dinay daj daal dinay fekk daal dinay jot yoolu jëfam yooyee mu doon loo xam ni dañ ko koo dencaloon doon loo xamante ni nii dañ ko koo fulal mu fekk jëfam ya ñu dencal ko ko rax ca dolli nag mu doon loo xam ni sax dañ koo ful maanaam dañ koo multiplier daal di koy bari في جنة عالية في جنة مرتفعة المكان والمكان منك منك أي أجنة أجنة يو خمني دانيو أم أكو كوي مانغو كوي برب أكو كوي لا تسمع فيها لاغية لا تسمع في الجنة كلمة كلمة باطل ولغو فضلا عن سماع كلمة محرمة من الجنة جوجي دوفا ديغ كادو غو خامني كادو نين لا ولا تياخان اي مبوسور ديديت wëlis nag nga fay dégg kàddu goo xam ni kàddu gu aram la caaxaan sax doo ko fa dégg waxuma la nga fay dégg loo xam ni lu aram la فيها عين جارية في هذه الجنة عيون جارية yu yufajjirunaha wa yasrifunaha kayfa shaa'u mu ne ca biir àjjana yooye nag dafay nekk ay bët ma ngoog ca biir àjjana ja dafay nekk ay bëti ndox yoo xam ne yuy daw la ma bët yooyee ñu koy bënn ak di ko jëfandikoo di ca doxale nañ ko soobe ñoom فيها سرر مرفوعة فيها أسرة عالية mu ne ca biir àjjana joojee nekk na ca ay lal waaye nag yoo xam ni yu kawe la wa akwaabun mawduuca wa akwaabun matruuxa muhayyaa lilshurb ak it ay kopp kopp yoo xamante ni nii ay naanukaay la yu ñu waajal tegal leen ko ngir naan wa namaariqu masfuufa wa fiha wasaidu wasaidu marsuus baaduha marsuusun baad am na it ay njeganaay yoo xamante ni nii des leen a sësale yen ya ca yeneen ya daal di koy ranger wa namaariqu masfufa wa fiha busutun kathira mafrusha huna wa hunak mu ne amit mu amit ay laltu yoo xam ni des koo lal waaw lal fii lal fële walamma dakara allahu تفاوت أحوال الأشقياء والسعداء في الآخرة وجه أنظار الكفار إلى ما يدلهم على قدرة الخالق وحسن خلقه ليستدلوا بذلك على الإيمان ليدخلوا الجنة فيكونوا من السعداء فقال منه ببرم بجل وعلا دال دي تدي تدك تقنتل tuddug ràññetle ñi nga xam ni ñooy ñetti xeet yi ak ñay texe ca àllaaxira ku ne la fay xaar mu daldi nag jubale gis-gisu ña nga xam ni ñooy ñewet bi mu jubale jëme ko ca la nga xam ni da leen di tegtal wala ya nga xam ni da leen di tegtal kattanuk borom bi tabaraka wa taala ak rafetuk mbindam loolee ngir ñu mën caa settantal ba mën caa tegtaloo ca la nga xam ni mooy ak ngëm bu boobaa kon ngir ñu mën a tàbbi fa nga xamante ni nii mooy ajjana ja waytexe ya tàbbi mu ne sunu borom ne leen afala yanduruuna ila al ibili kayfa xuliqat afala yanduruuna nadara ta'ammul ila al ibili kayfa xalaqaha allahu wa saxaraha li bani aadam ne sunu borom ne leen xanaa ñoom de xooluñu xooluk settantal xool goo xam ni xooluk settantal la xooluk jàngat ma ngoog du xooluk seetaan waaye xooluk settantal xooluk jàngat di xool dara di ci jàngat ay mbir di ci xëcc xam-xam mu ne ci ki nga xam ni mooy gileem na ko borom bi tabaraka wa taala bindee na gileem mel la borom bi tabaraka wa taala def ci mbindum gileem muy yu doy waar moom gileem waaw sunu borom defal ko ay jagle yu yéeme xool ko na muy doxee ca gannus ga ma ngoog ci li nga xam ni mooy désert bi na mu fay dunde dundam naanam lekkam ak yu ni demee tagat ga nga xamni borom bi tabaraka wa taala tagatal nako ko doomu adama wa ila as-samaa'i kayfa rufiat wa yanduruuna ila as-samaa'i kayfa rafaaha allah hatta saarat fawqahum saqfan maxfuuda la yasqutu alayhim ñu xolit jëm ca asamaan na ko borom bi tabaraka wa taala yëkkatee mu doon xaddeen woo xamante ni nii da leen a tiim te du rot seen kaw wa ila aljibaali kayfa nusibat wa yanduruuna ila aljibaal kayfa nasabaha wa thabbata biha al ard an tattariba binnaas ñu xoolit montagne ya ma ngoog muy tund doj ya ñu xool ko na ko borom bi tabaraka wa taala sampee ci suuf ba nga xam ni du yëngu di réngi réngi ci kaw nit ñi wa ila al ardi kayfa sutihat wa yanzuruna ila al ard kayfa basataha wa ja'alaha muhayya'atan لاستقرار الناس عليها ñu xoolit suuf nako borom bi tabaraka wa taala defee mu doon lu maase waajal ko mu doon loo xam ni lu jàppandi la ngir saxu nit ñi mu ne walamma wajjahahum ila annadar ila ma yadullu ala qudratihi taala wajjaha rasulahu fa qaal ba leen borom bi tabaraka wa taala jubalee tegtal leen ci ñu xippi seeni gët tijji seen xel xool xooluk settantal xooluk jàngat ba mën caa for dara mu ne gannaaw loolu borom bi jàlla wa ala dal di jubale nag jëm ci yonant bi alayhi salaatu wasalaam ne ko فذكر إنما أنت مذكر فعظ أيها الرسول هؤلاء وخوفهم من عذاب الله إنما أنت مذكر mu ne ko yow yonant alayhi salaatu wasalaam fàttaleel waareel ma nga xupp leen xawwifuhum xuppee leen mbugalu borom bi tabaraka wa taala waaw yow waarekat nga fàttalekat nga xuppeekat nga laa yutlabu minka illa tadkiruhum lañu sàkku ci yow nag du leneen lu dul nga waare waxal la la sa borom waxloo jottalil ma ngoog jàngaleel joxeel wa amma tawfiquhum lil imaani fa huwa bi yadillahi waxda bu fekkee nag ak tawfiq la moom dëppale leenu ngëm loola moom ma nga ca loxol borom bi tabaraka wa taala loola yow yoroo ko yow yonante bi لست عليهم بمسيطر لست عليهم مسلطا حتى تكرههم على الإيمان دونو كو خامتيني ني مانغو داغا لين دي فيتي كاو سوبولين توغانو لين فورس لين ci li nga xam ni mooy ngëm yow doonoo kooku doonoo koo xam فورسي نيت ني ngay لين nit بار فورس ديديت gëm waye kay la nga man moy garal garal mbir ya leral mbir ya garal firnde tek preuve lola moy sa taxaway إلا من تولى وكفر لكن من تولى منهم عن الإيمان وكفر بالله وبرسوله وأينك آه كوير دي كنيوم دادي فتر دادو لنغا خمني موي weddi boroomam weddi yonantam fa yuaddibuhu allahu aladaaba al akbar fa yuaddibuhu allahu yowma alqiyaamati aladaaba al acdam bi an yudxilahu jahannama xaalidan fiha kookee de sa boroom dana ko mbugal bés keroog muy yowmal qiyaama mbugal goo xamante ni nii mooy mbugal gu rëy ga nag ci tàbbal ko biir safara mu doon koo xam ni daf fay sax inna ilayna iyaabahum inna ilayna waxdana rujuuahum baada mawtihim mu ne fi nun nag fa la ñuy dellu si nun képp waaw ñoom ñëpp nag mën nañ faa nekk di weddi de waaye gannaaw bu nga xamante ni dee dikk na ba ñu faatu buñ leen dekkalee fi nun lañuy dellusi dellu si thumma xisaabahum ثم إن علينا وحدنا حسابهم على أعمالهم وليس لك ولا لأحد غيرك ذلك من توقي سيلو من دخل موي رجل بني لين دي رجل أتى بني لين دي أتى لولي نون ني يور لولا دو دون لو خامني دونو لو خامني يو ياكو يور ولا كينين موكو يور ديديت واي نون ني نوي كيغا خامني نيوكو يور من فوائد الآيات تنجرين يغا خمني ديس نكو فري من أهمية تطهير النفس من الخبائث أهمية تطهير النفس من الخبائث الظاهرة والباطنة صلح سينكسي لا بل بكني في نياوتي في غخمني نيو نياوتي في بيرك بيتي الاستدلال بالمخلوقات على وجود الخالق وعظمته تكتلو تي منديفي تي اموك كيغا خامني موي كي بند منديفي اك ماغايام مهمه الداعيه الدعوه لا حمل الناس على الهدايه لان الهدايه بيد الله تخوايو رولو كيغا خامني موي ووتي بي موي مو ووتي رك كيب du moom moo war a yanu nit ñi teg leen ci li nga xamante ni nii moom mooy njub ndax ak njub moom mu ngi ca loxol borom bi tabaraka wa taala bu ko defee nu teg foofu sunu baaraam ñaan boroom bi jàlla wa ala mu defal nu tawfiq defal leen ko defal nu taysir defal leen ko asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu